dal leen ak jàmm mbokk internet yi dakkal nañu julli ca jumay Touba jamono ji lu dul noddukat ya ak ñay liggéeyee ca boobule juma may ñu leen ñu ñëw di julli ji foofu loolu ci jumay Touba ja ke ko xamle di xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké jaarale ko ci ki mu dénk ay kàddoom di Serigne Bass du Khadre li waral boobu boobule ndigal tukkee ci xalif général des mourides mooy xeex bu ñuy xeex jàngoroy coronavirus ji tey bañ rek wàllante bi gën a gaaw mbaa gën a law ci daje yi nga xamante ne moom la ñuy daje ak sàmmonteek ndigal yi nga xamante ne état bu Sénégal jot na ko jël ngir rek jëlee fi doomu jàngoroy coronavirus ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke Cheikh Bass Abdou Khadre yëkkati na ay kàddu di fàttali rek li lislaam digle ci jamono ju ni mel comme ni ko yonent jàngale ci dundam waaye itam dolli na rek ay ñaax ci sénégalais yi nga xamante ne ñu gi ci biir réew mi ak ñi nekk ca bitim réew ngir ñu sàmmoon teg wareef yi leen état bi digtal te jëfee ndigal ak tegtalu waa kër docteur tere na nu ñëw bu Tuuba sëriñ Bass Abdou Khadre di sàkku ci taalibe yi ñu toog seeni kër jullee foofu waxtuy juróom ak sax julli am ca vendredi daanaka dakkal nañu bépp julli ca jumaay Tuuba yile kàddu nekk loo xamante ni dafay leeral rek dëgg-dëgg werante gi amoon ci tëjub jumaa yeek jàkka yi ci jamonoy coronavirus ci bis ni ki tey jël nañu ndogalub tere bépp julli ca jumaayu Tuuba te ñi ñu may rek ñu julli mooy ñi nga xamante ne ña ngay liggéeyee jumaa jooju wala sax ña fay nodde noo ngi fii ci daaru tanzil kër cheikh mohamadul montaxa xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér nekk fi ak njabootam muy ñi nga xamante ne bii lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ak diine ji ci seen loxo la ko teg ñu ànd ak Cheikh Mahamadul Bachir mi nga xam ne moo yore kàddoom ñu fas yéene yëkkati ay kàddu yu ndigal yoo xam ne moo leen ko jox ngir ñu jottali ko àdduna bépp ak jullit yëpp ak murit yëpp. bokk jullit yi bokki taalib yi bokki réew mi yëpp. ñu ngi toog fii ci kër Cheikh Mouhamadou taxa mi nga xam ne moo fi Serigne Touba tey ñaan mu yàgg fi lool tam ànd ak wér ba naaj yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey sëriñtuwaa suñu boor may ko kàttan ak wér lépp mottali ko nu mu ko bëggee kon ñu ñëw fii ci ndigalam ngir yëkkate kàddu yi ñuy bëgg a wax. yàlla def barki démb sax la ma ko jikkoon a wax nee naa ko jot li bokki taalibe bi waaye mu tombé bisu Kazu Rajab ba démbu ci timis mu waxaat ma nee naa ko wax tey jii ba yàlla dogal ndigal lii def si waat ñu tey mun na ko naa boole kàddu yëpp jéeme ko ci ñëpp la ci jiitu nag mooy ni mu ko waxee woon rek mooy ñëpp toroxluwaat dellu ci yàlla tuub jéggalu suñu borom. ngir lii nga xam ne suñ borom def na mu tàbbi ci àdduna si tàbbi ci biir Sénégal yàlla ñu ko fi indi te muy mbindaaf comme ñëpp yàlla jëliwaat ko fi mu fàttali ñu baax nag la Sëriñ Tuubaa waxoon ba peste ci njaarim ba ñëwee di ko ci ñaanloo te leen waxoo leen yàlla suñ borom ñu ko fi indi waxtu ko jeexalee dana jeex ba bis xam ngeen histoire ba ñëpp noonu jëmee day gudd waaye mu xëy ne suñu borom xamal na ma ne jàngoro jooju ñu fi indi woon yàlla jëliwaat na ko fi mu tàggoo ñu kon nag sëriñ bi nee na mi ngi teewluwaat moom mooy rek di ñaan suñu borom mi ko mu jeexal ko di fàttali rek nag li nga xam ne waxoon na ko fan yee mooy li ci lislaam santaane nee na kon loolu ñi nekk bitim réew ñii di ay jullit ñii di ay mbokki taalibeem mu xam seenu njàmbaar ak yërmaande jëm am ci ñoom xam la ñuy dund ak fañ nekk nee nañ xam ne fàttewu leen ñoom ñëpp mu ngi leen fàttaliku di leen ñaanal suñ borom defee leen jàmm musal leen ci ba ñibbisiwaat jàmm ñi nga xam ne yàlla def na itam ñu jote ñëw ci biir réew mi nee na ku ci accepté koo xam ne ñëw nga ba ci biir nee na na nga dem seetlu sa bopp ndax moo gën jàngoro ji di gën a law di wàlle ndax addis bi dafa wax ne laa darara wala dirara kon noonu lool nee na lool mu ngi koy fàttali ñëpp ku ci accepté nga fexe ba dem ca ñi war a seet ñu xool la ba xam ndax tekkiwut na ku jóge bitim réew ku nekk loolu dalaa dal waaye mu ngi koy fàttali ñëpp nee na itam mu ngi fàttali ñëpp itam dénkaane bi nga xam ne bokk na ci sëriñ bi mujj wax ci njaaram waxoon na ne yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne yette ci tax a mucc noppi jekki jaamu yàlla nangoo liggéey doyloo nga am doyloo la nga am muy muy juróom yëf yi nga xam ne sëriñ Tuubaa daana ko santaane nee lool nag jamono jii ci raw kon nee na ñëpp mi ngi leen koy sant lépp loo xam ne daal dana musli ci jàngoro ji wala dana tax muy muy muy wàlle képp ku ko mën a wattandi na ko def te la ci des lépp nañu delloo ko suñu borom la ca dellu ko waat nag mooy nee na mi ngi sant bokk jullit yi di sant bokk taalibe yi rawatina nag njabootu Cheikh Mouhamadul Fadel di ko teg ci loxol sëriñ Aboul Barka mi nga xam ne mooy kilifa kër ga ndax bi nga xam ne màggal gi ñëw na fi mu ñëw ba ci moom waxtaan ak moom la mu waxtaan ak moom ba sëriñ bi wax ko kàddu mu ko wax tam wax loo ko Cheikh Ahmadou Badawi mii mu wax ko àdduna sépp jëfandikoo ko sëriñ bi nee na mi ngi ko ci sant di ci sant mboolem njaboot Cheikh Modou Fadil di xam ne eh, loolu rek lañ séntu ci ñoom ndax ku tudd Cheikh Modou sax dem ci bientu bu nu wëtee bil irada waaye nag dëggal nañ ko ndax la ci gën a yéeme wax naa ko ko démb njabootu Cheikh Modou Fadil gépp kenn ku ci ne dangaa dugg ci sa néeg bu gën a ngir bañ nit ñi gis la jàng alxuraan jàng xasida teraanga yi ñu tasaare ko ci dëkk bi kon sëñ Yaxma sëriñ bi nee na mi ngi yóbbanteem ñëw ci sëriñ Abo ak mboolem njabootu sëriñ bi yëpp di leen sant bu baax di leen gërëm ngir xam na loolu itam xam na ni yéen a ko bokk ndax bu leen santit eh, da leen da koy jotali rek waaye cant ga moom ci biir ndax bu leen sant rek sant na boppam la ca desaat nag kon mooy kàddu yi nga xam ne war naa jëm ci eh, xew-xew bi nga xam ne moo xew fii jamono toll ndax sëriñ bi nee na mu ngi fàttali ne suñu borom dafa ci alxuraan atiu llaha wa atiu rasula ulil amri minkum moo tax dañoo xam ne ci biir àdduna lañ nekk am ñu ñu ñu fi bokk ñu fi bokkal dëkk ni ci biirum réew am ñu fi bokkal dëkk kon nag lépp loo xam ne war na nit ci kum bokkal am réew war na di ci koo xam ne bokk naa nit ci dëkkandoo àq joojee dañ ko war a sàmmonte ngir loolu mooy li nga xam ne lislaam santaani na ko loolu nag ay kàddu la yoo xam ne eh, ñi ko war a leeral li nga xam ne sëriñ bëgg na ko ni ngir bañ kenn di loroo fii ndax fii moom sëriñ Tuubaa lam ñaanoon suñu borom defal na ko ko woon fi la ba wal balaaya kullaha anha wa tay wa tay shurbaha wa aklaha kon suñu xeddal na suñuy kàddu mën a gudd ndax sëriñ bii mooy Cheikh Mamadou Mountakha ay kàddoom yónni na ko Cheikh Mamadou Bassir waxee na ko ni ko sëriñ bi bëggee woon li ci des itam ñi seq liggéey bi kenn ku nekk la nga ci war a leeral sëriñ ba Basiiru wax na ko da ko leeral xanaa kon di man ñaari baat képp laay mën a wax yoo xam ne ma bokki taalibe yi laa koy jottali rek ci ñi ma soññ sañ a soññ ñun murit yu ndaw yi rek ci nin war di gàttandoo ndigal ak buñ ko déggee nin ko war di fa yéenee jëfe ci sellal mu mel ne lenn ndigal tuuti waxtu ndigal jóge bu nekk taalif bi moom déglu ndigal ak dégg ndigal ak jëfe ko la war a def te ndigal li itam lu ñor sëriñ bi la moo tax sëriñ bi itam tolluwaay bi bi mu demee nii mu woo ñim bokkal liggéey bi ñëpp waxtaane wu ñoom ba noppi moom ay kàddoom yónni ko sëñ Basiru ci biir waxtaanam it wone woon na ne am na ci loo xam ne dana ci fàttali fa sëriñ bi nekk itam di fas fa yéene nekk waaye am na ci loo xam ne da koy diisoog ñi mbokkal liggéey bi laaj leen ci seen xalaat te loolu mel na ne ba tey delloosiwaat na ko ci na ko lislaam waaye delluwaa delloosiwaat na ko ci xel mu rafet mi ak doomu adama laaj waaye delloosiwaat na ko ci xam ne bokk mi yi mu bokkal liggéey bi ñoo bokk bëgg bokk Pastef kon dinañ diisoog ñoom ndax seeni xel doy na ko te xam na ne lu koy defaral rek la ñuy waxtaan ak moom donte danañ ko delloo lépp ci Pastefu taalibe duñ bëgg a wax duñ bëgg a am xalaat waaye sëñ bi faaw mu déglu leen ndax wa shaawiruhum fil amri jëm ci alxuraan loolu mënta ñàkk kon bu loolu amee nun bokki taalibe yi nga xam ne noonu la sëñ Muntaxa yónni sëñ Basiru ci noonu nu bàyyi xel ci lii nu sëriñ Basiru wax te bàyyi xel gi mooy mbir mii nii mu doyee te sëriñ Muntaxa bëgg ñu sàmmonte ci ak ñaar yooyee mooy ñuy jaamu yàlla waaye ñuy wattandiku waaye ñuy bàyyi xel ñunu yàlla booleel ñuy kilifa jamono àdduna ji lépp day tax ak déggoo mën a am ba lépp mën a yomb lépp mën a rafet kon nu nañ fas yéene lépp lu nu ci dégg ñoo ne nañ ko defee nii kenn ko ne na ci delloo sam xel xam ne defe ko ne ko sëriñ bi bëggee moo ni mooy li ñuy jariñ kon nanu déglu ñu nuy wax li ñu nu wax ne nii lañ ko nii la ko sëriñ bi bëggee ñu defe ko ni ndax mooy gën a rafet mooy gën a matale noonu ñëpp nu fas ko yéene defe noona maa ngi yëkkat sama kàddu ci turu kilifa yi di jot li ndigal lii sëriñ bi wax muy xew-xew yi xew ci réew mi xew ci àdduna muy wér a dégg te kilifa yi jël ci ay matuwaay ngir bëgg yàlla musal ci nit sabablu ni ko yàlla santaane li ci des ñu bàyyee ko suñu borom mi nga xam ne mooy dogal te di ko ñaan mu teggi ko ci dem gën a gaawee euh, xam nañ ne ndigal yàlla yi julli ci la bokk moo ci gën a màgg ci julli mbooloo koy def te mel na ne kilifa yi yëg nañ ne ay mbooloo dajee ci barab lor ji mën naa tasaaroo sëriñ bi waxtaan ak ñi ñu dénk liggéey bi bañ gis ne mën nañoo def ndigalul yàlla li te mën nañoo moytu li waa kër docteur yi di wax moo tax mu wax ne jumaa ja incha allahu taala ña fa nekk nga xam ne fa la ñuy liggéeyee te li mazhabu Malik wax muy fukki nit ak ñaar rek bu ñu dajee ak ilimaan bu ñu julee ajuma wér ña fa nekk mat nañ loolu mbaa ñu ëpp ko kon ñooña am nañ ndigalul des fa di jiit julli waxtu juróom ak ajuma ji su ko defee ndigal yàlla yi sax na lor ji nga xam ne ni it ñu ngi koy séenu ci mbooloo yi dajee woon ci barab ba ñu moytu ko ndax sunu borom mi tegee jàngoro moo santaane faju mii tege ay nattu moo santaane fegu moo santaane sabablu sëriñ bi nag bëgg ñëpp mucc waaye li jiitu ci mucc gi mooy saxal ndigal yàlla li kon fexe ba na ko yàlla bëggee ñu defe ko ni waaye lépp luy sabab ak lor ñu moytu ko loolu nag yeneen jumtuwaay yi mu war a àndal ci matuwaay yi ñu war a jël dinañ ko jël ci set geek yi ñu war a def yëpp loolu fekkoon na sax waa daayiratu muqaddamatul xidma tàmbali woon ko ba ñi fi doon teew ci waxtu ji li xam nañ ne matuwaay yi ñu doon a jël yëpp ko doon jël ba àgg ci foo xam ne sax mën na ne ñëpp àgguñ fa loolu nag sëñ banque yi soññee ak bëgg ñu gën ko bàyyi xel loolu daal mooy li mu waxoon ne nañ ko jotali ñëpp fa taal bi nekk dëkk ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi yi teew ñu di seen loxo ñu tegal nañ si loxo Cheikh Mouhamadul Muntaqa joxe kàddu yu néew yoo xam ne ndigal ak yoo xam def ko waaye moom li fi jàll yóbbaale na li waroon a wax lépp salaatul jumaati nag mooy li nga xam ne baat yi ñuy wax ci la ñu koy jëmale sëriñ Mbakke Abdurahmaan wax na ko léegi jumaam fukki nit ak ñaar ak ilimaan ci lay fasoo ak lu ca dolli ko kon nag mel na ni ñi sëñ bi jox ndigal ñu nekk ci biir jumaa ji amee liggéey bi seenu lim jégg na loolu bu baax a baax a baax fukki ak ñaar yi tax jumaa fasu ànd ak ilimaan lu ko ëpp am na fa kon nag ñuy sëñ bi di xam le ne kenn ku nekk fu la waxtu wi fekk mën nga ko julli sa tusbaar di xamal mbokk julli yëpp rek ne leen ni ko sëñ bi waxee incha allahu taala fa nañ ko